ginnaaw bi mu yokkee courant bi taal lamp yi yokk ndox mi maire bii di galo Ba am na yéene defaraat théâtre de verdure bu Mbàkke Bool am na yéene tamit defar maternité ba nekk ci Croix Rouge waaye yemul foofu ndaxte maire bii di Gallo Ba nag ba muy door a toog amoon na mbébétu defaraat tëli yi nekk ci biir diwaan bi boobu mbébét nag dafa mel ne fi mu toll nii antu na ndaxte kat tëli bi nga xam ne moom moo bàyyee ko ci station sel bi jëm buntu kër Sëriñ Daam Atta ñu door ko li nga xamante ne bi moom lañ ko war a liggéeyee di jumtukaay yegsi na mu ay camion yu yàpp ay pavage bis bi am yegsee nag ñii nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi koy jàppal tànk yëkkati nañ fa ay kàddu ñu déglu Youssou Ndiaye ci micro Sen dañoo ñëwoon pour juste def témoignage ci liggéey bi nga xam ne nii bu am solo bi nga xam ne nii monsieur le ministre maire Gallo Ba mi ngi koy réaliser di ko liggéey dans la ville de Mbacké. parce que tey jii ba ñu ba nga xamee ne dig nañu ay projet di campagne tey ñu bëri dañoo taxawoon ñii ne dina am ñii ne du am yaakaar na ne nag moom leader la boo xam ne nii ay waxam bëriwul. il répond par des actes des actes yo ce sont des actes très concrets xam nga parce que tay ku gis pavage yi ñew agsi nga xamni toutes les grandes artères de la ville de Mbacké tay inshallah allahu rabbi dañ koy pavé pavage bi tay li li koy def moy par des jeunes des jeunes yo xam ce sont des jeunes de Mbacké nga xam tay ji lool non day créer créewaat ay emplois au niveau de la ville de Mbacké tay jeune bo xam tay amo won ci lo japp amoo woon loo def tey jii boo ñëwee incha allahu rabbi dinañ la jël formé la nga amaale métier parce que tamit loolu moo ci ëpp solo ndax jël ndaw mi formé ko jàngal ko xam-xam ni muy kii ba pare jël ko di ko fay loolu lu am solo la yaakaar naa tey Mbàkke problème yi ñu fi amoon tey ñiy dawal oto yëpp problème bu violette ak première roture lañ amoon parce que foo dem ay kàmb la ay pax yoon yi dafa métti woon tey jii pavage yaa ngi ni gaare camion yaa ngi nii ñëw na li ci topp mooy monsieur le maire Garaba réalisation bi am na lu jiitu parce que tey képp koo xam ne autorité nga ci dëkk li nga xam ne sa poste la yaa ngi ko jël denc ko di liggéeyee li nga xam ne moom moo nekk ca dëkk ba kese ci ci ci ci au niveau de la mairie tey jii bi mu toggee ci dëkk bi li mu jëkk a def débourser des millions et des millions jënd ay camion très moderne camion vidange jënd ko tey moo ngi ne jël nga ko sànq ñu ñu ciy ŋàcc ndox mi nga xam ne nii moo taa ci Mbàkke jënd tamit ay camion euh, mbalit yoo xam ne ce sont des camions très modernes de dernière génération jënd ko may ko waa loo xam ne ci poosam la jógee don la jugewut ci poche commune bi jugewut ci poche fenn tey jii nii yaakaar naa tey infrastructure yi beaucoup de chantiers sont en cours wala lancé nañ appel d'offre parce que maison de la jeunesse bi mi ngi ne tey jii bu paree dinañu jëriñ lu bari tey jii stade bi ñëpp xam nañ ne travaux yi xamoon nañ li fi amoon démb ak bërki démb tey jii ku gis travaux yi tey xam ne accéléré nañ ko wax dëgg fa yàlla am lancé nañ appel d'offre centre commercial bi lancé appel d'offre théâtre de verdure bi ak maternité Croix-Rouge bu Mbacké bi tey jii nii ne

ak di am nag fierté parce que boo àndee ak as gor daf naa ni man xam ma promesse électorale ay engagement laay jël mu ne woon dëkk bi bu ma koy laaj damaa yaakaar na war naa ko mën a changer dëkk bi su ma ci jotee te li ma ci war a def defuma ko bu laaj jotaatee man damay banque sama loxo du ma ko laaj loolu nag wane na que lam mu waxoon ma nga ca parce que dañ naan góor wax une promesse doit être tenue te promesse bi nga xamante ne bii nag monsieur le ministre defoon na ko ci Mbàkke muy jàppale dëkk bi dëkk bi soppeeku jàpp naa ne moo nga ca parce que tey lii ñëw wane na ne am na ay axes yu bari yoo nga xamante ne bii ne des na ko pavé mu nekk ay yoon muy axe bi nga timlim léegi axe bi war a jaar nii ci pegg raay bi et cetera donc ñun ñi nga xam ne dañuy ànd ak moom di ko jàppale ci li muy liggéey dañuy am dëkte dañuy am fierté di wax waa ne leen nañu ñëw ensemble autour de l' essentiel ñu jàppale le ministre parce que gis naa ne am na bëgg bëgg na dëkk bi bëgg na doomu dëkk bi bëgg na dëkk bi mel comme dëkk yëpp wax naa ko bërki démb man leen Mbacké est en train de chipper la vedette à Paris en termes d' éclairage public plus de 2000 lampes la wàcc mairie bërki démb lu mu ci jublu mooy Mbacké dootoo dégg fenn dafa lëndam wala fenn am na agression wala lu fu nit jaar mu leer noonu la ko defee nag ay yeneen infrastructure yu bëree bëri donc ci gàttal mooy lii dañ ci am fierté ndax projet la bu nga xam ne li mu ëmb dafa bari parce que dama waxul yoon bi ni muy ni muy yombale déplacement yi ci biir dëkk mais projet la bu nga xam ne ndaw ñu bari dinañ ci amum xëy parce que ay nit ñoo koy teg te bépp jeune bu nga xam ne pare nga pour engagé boo eggee dafa mën a travailler comme journalier ñu man di la ñu man di la fay nga mën a nga man ci suturlawu man ci jàppale sa njaboot donc projet bi daal vraiment c'est une ndaw yi ànd ak galo ba nag ginnaaw bi ñu yëkkatee ay kàddu ba pare wéyal nañ seeni activité fan ko dooree nag mooy tëli bi jógee ci station sel bi nekk ginnaaw raay jëm ca gaar ba foofu nag ginnaaw bi mu tawee ndox mu bëri moo fa nekk ñu daal di indi oto vidange yi fas yéene ko ngàcc ba mu set biñ ko ngàccee ba pare nag gis ngeen ko ni mu mel ginnaaw tëli station sel ba ndaw ñi biñ paree dañoo jubali sa tëli ba bàyyee ko buntu cinéma jëm Elton ba foofu nag ginnaaw bi taa ba benn woto mënu wala sax woto yi buñ fay jaar dañ fay dund ay jafe-jafe foofu nag ban fa yeggee kii di ay kàddu ñu diggalu ko ci micro seen set ñëpp waaw wax dëgg fa yàlla dëkk bi xëy na fépp taal ñu taal suñu photo manque ànd manque dëkk bépp bu tàmbalee manque dëkk bi nag ba 14 heures bu ci tàmbalee taw dañ lépp amaan ndox ñu teel bu bàyyi ba taw ba pare ñu àndaat ak moom di manque boobu ba léegi ñoo ngi terrain bi di a ngi nii jot nañu jëm 19 heures te taxul bàyyi waaw buñ sañoon daal mbàkke ak si am ndox rek nañu ko signalé ñu ñëw manque waaw ndax loolu moom lu baax la ndax ak si waruñu ko bàyyi ni mu mel nii mu mel ko chaque jour ñun ñoo ngi ci terrain bi pour yëg taana wala sa koñ taana lu gën a gaaw waaw ñun defar Mbàkke rek moo ñu tax a jóg ànd ak monsieur le ministre maire Gallo Ba ànd defar Mbàkke Mbàkke am banaa xarkanu taraf ci lañuy xëy ci lañuy gontu ci lañuy wax ci lañuy nekk moo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla tàllal nañ suñu micro ci askan wi yëngale ci boobule bërëb ñu déglu ko ci micro seen set ndax lii mu def ni kontaan nañ si trop wax dëgg yàlla ndox mi moom sonal ñun démb léegi ñoo sonal ndax benn charette charette sax des fois dañuy yëpp waa buñ fi jaaree dañuy dugg si kàmm gi bu ko defee ndox mi dana sono mu jigi nit ñooy wàcc wokk suñ tànk yi xuus suñ ndox mi jàppale borom charette yi ban jàll te même temps dañ fii pune yi fi nekkoon sax ñun ñoo ko fi teg nga xam si dafa am kàmb oto bu fi ñëw dañ lay signal ne la fii la bu nga nga teggee nii wax dëgg yàlla gis nañ mu ngi commencé di mais li def baal kontaan nañ si wax dëgg yàlla